kuriyaa bi yal na la ko yàlla may mu ne Bakaw si sëriñ bu mag la mu ne président président Loya Dabo mu ne beneen weer buy ñëw mu ne réew mi yëpp dinañ wax ne président euh, Hussein Dabo mu ne ci may gën a xalaay mu ne ngeen wax Dabo presse yi mu ne su ñëwee mooy bi tamit ah mu ne bu mag bi la wax de mu ne te yàlla loolu wax ak tamit malaayka yi loolu la ñuy wax ak te jinne yi tamit loolu la ñuy wax ak UDP loolu la ñuy wax mu ne bëri yeneen parti yi sax ñoom ñëpp dinañu wax président Ousainou Darboe Loya Ousainou Darboe jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf salaam wala